haa wala duniyaati haa wala duniyaati shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran shukran ya mawlaaya sayyidi muhammad te aussi dinaa la wax leen nga xam ko man mësuma cherché nekk imaamal mahdi non mësuma cherché nekk imaamal mahdi ñi ma xam ñëpp xam nañ lool mësuma cherché benn jour nekk imaamal mahdi wala duniyaati wala duniyaati shukran shukran shukran shukran